dañu ko rëy mais ci koo doom bu am jom mu wax li daf koy manger laaj alxaaji Abdoulaye Niass mu nettali ko na xew-xew ba demee woon mu ne daf koy manger c'est tout à fait normal mais alxaaji Abdoulaye Niass wax ko ko peñoonte muñ moo ko ëpp yoon mu ni ko kon maa ngi nga muñ ko mu dellu ba tey ci li yàlla gën a sant yonent bi ba tey ci wàllu muñ ak lu mu metti metti nga muñ mooy li yàlla waxoon yonent bi fasbir kamaa sabara ulul azmi mina rusul dama ko firiloo seen Cheikh Tidiane si ma ne ko loo déggee fasbir kamaa sabara ulul azmi mina rusul mu ni ma yàlla dafa wax yonent bi ni ko bu la sa nawlee gën a pare te loolu ñi koy nangoo ci li yonent bi daan jëfandikoo parce que lu ne woon nañ ko sonnal nañu ko tooñ nañu ko gaañ lu ne def nañu ko waaye mu opposé leen muñ bu demee ba xare dafay wax ni rahimallahu Moussa ndax bu dee bi ak dëgg min hada fasala mu ngi nii lu ñu ma mën rek wanoon nañu yem Thierno Moussa lu ko gën a métti dëgg kenn mosul léegi fu mu kon muñ ci jaamu yàlla la bokk may wax ni bu nu la laajee luy alquran waxal ni c'est une source de grâce et mu jeex parce que loolu tax yàlla wàcce ko te jaamu yàlla diisul waaw diisul da nga koy wax fan yi ma ni bu nu duggee ci weeru koor ni ma gisee tabaarakallahu nit ñi di ci am yitte ci seen jaamu yàlla ci ma ne mais kenn waxu leen ñu xaar ba koor gi dafa war a nekk seen quotidien xanaa leen rek moo ci dul ko li ngay ndékki di añ di reer waaye bu dul loolu nag waxuñu la nga xaar ba koor jot nga door a def effort yokk say jaamu yàlla loolu moom dafa war a nekk bis bu nekk bu euh, may gis ci Ndakaaru seen façon dem juma yi tam dinañu koy fonke ak juma tabaarakallah mu ni yëpp ci diine la nekk waaye ñu ci nekk nag fexeel ba la ca war ci équilibre nga def ko ñun suñu ilimaan xam nga benn ilimaan la ñu am mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Sénégal yëpp moom la ñu gëm damay wax toujours si le Sénégal n'est pas une république islamique nommément il est réellement loolu la yàlla doon ba tax na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 ma ne lu ko gën a am solo amul waaw koo xool soxnaam ba ne ko soxnaam mu xaram borom këram ma ne xam nga lu tax mu may ko xam nga ne du ko wax kenn du xool kenn dangay soxla laa sa soxla mais am na ñoo xam ne bu leen ko mayee ñu tës bu ñëwoon di soxla fi sens mesure bi yonent bi am moo tax mu xam ne boobu adam ne tukki du xool soxla kenn wax ne sa soxla soxla la parce que xam xam na ne yàlla daf koy cëral tax mu wax ko loolu waaye xam na ne boobu adam lay tukki di ko def ñu jël ba tey alxuraan xale yi fa tabaraka allahu seen jàngi rafet na tabarakallah waaw ma gis ni te cosaan mag nga xëy ci këram génn nga boppam ak génn nga ci tànkam wax ni lu ko dindi fekk tarewul alquran moom mag moom ngir xam li ci biir Serigne Babacar Sy yàlla daal la ànd daan nañu nekk li bi muy jógee ci daara ñëw ci daaw rekk fu Cheikh El Hadj Malick nee na mu ñaan ndigal bu Cheikh El Hadj Malick may ko bu nu jullee ba noppi mu tere ko li mu jàng ci alquran ne ba mu ko defee jàng tari ba fajar jot kaamil bi jeex ne ni ngeen la gis si ay xaaj Malick daf koo neexal may ko fanweeri dërëm ak benn mbuub ni ko maa ko tëralee alxuraan pour wan la ni jullit yi war nañu seetlu waat xalaat parce que y a tellement de rupture dans la vie des musulmans rupture parce que su suuf boo ko wëccee doo amante feneen fooy nampe lu la mën a li la li téere yi dafa bari li téere yi dafa bari ba ci ci ni ñuy jaamu yàlla na gën a téere ba ci sommeil le sommeil am na gën a téere parce que kenn la wutul soleil euh, sommeil buy féexal sa yaram wala bu koy yenn kenn ku ne sommeil mécanique ngay léegi te mooy def koy sës rek nga ku sa xel dàq wala ku bu ñu ko jëlul def ko mu di suñu référence def ko mu di suñu refuge leneen lu ñu wuti lañu cay am du tolloo quiétude bi ñu alxuraan di jox ba moo tax bu ñu gisee xale yi tabarakallahu def effort ñu encouragé leen wan leen am nañu yaakaar ci seen avenir ay mënu ko jàng noonu rek bàyyi la ñu public yi amee li ñu seet les profondeurs approfondir les profondeurs du corps parce que dafa xam te ah wax naa léegi dañuy wax ne am na loo xam ne mënul ànd ak lu dul muñ parce que ak takaalu ak takaalu du arrangé dara ñaar la ñuy wax ak takaalu ñuy wax ak wàllu fukki xaj ci benn pays ci kenn ku nekk léegi boobu moo doon moom léegi nga yóbbu lu benn boobu te dafa xam lu li mu li mu téye te doxal ko ci jub loolu lañu ko sax ba tax na tabaarakallah euh, Serigne Chouaïb miin naa ko ci kaw waxtaan ak sama mbokku daara Cheikh Awa Balla Gueye ñu tuddee ko seen Cheikh Awa Balla seen Cheikh Awa Balla moo daan si Serigne Cheikh bi muy am juróom-ñaari at daanaka ko jël si Thiaw ñu yóbbu ko tourné dafa moom weer ci àll bi seen Babacar si du ko laaj boo jëmee Cheikh Tidiane loolu dafay wax soxna si dafa la Cheikh Balla yi sax ko bàyyee. sëñ Cheikh Awa Balla dina dem ak moom weer lu ñu xam fu mu nekk ba xëy suuf ko indi wàll leen ko ñaari mbalit yu fees ak yére kooku wane ni moo jur sëñ Cheikh Tidiane si la nekk te itam Serigne Abdou Lahad dafa am lu am solo lool ñu waxoon ba ñu demee Touba te nga ne ko woon sëñ Cheikh dafa waxoon yéen waa Tiwaawan kaay leen jël si seen doom di nekk Touba waa Touba dem ci waawoon jëli seen doom amul lu ko gën a rafet loolu mooy dëgg nga defee bu ñu ci tuddee bés ci ñoom rek dafay nekk lu am solo ci ñun ñu di ko bëgg waaye di ñaan ñi nga xam ni ñoo koy organiser yàlla di leen may ñu mën di ko gën a organiser tabarakallahu toog nañu fii journée boo xam ni kenn yëgu ko kenn yëgu ni yàgg nañ fi kenn yëgu dara ñuy euh, masu wu ñëpp waaye ñuy sant sang yu jigéen ñi sang yu jigéen ñi ñoo ñu gën a diis mission damay wax ni ñun suñu mission dépense rek la ñu koy laaj jafewul ay sax réew yi jigéen ñi lu ñu leen laaj dañu leen di wax fexe leen ba individuel fu ngeen di gisee moo tax ñu ngi yaakaar ñëpp jigéen la leen mucc seen mission toujours kon ñoo sant leen ñaanal leen yàlla mu jàppale leen waaye ñu baalu ak ndax ci weeru koor lañu nekk te dafa am lu ñuy tooñe dañuy wax ñu sant si dañoo ragal koor na ngaa kenn jëm wala seen am ñu suñu Cheikh Tidiane si bu ma ko mosal nit ñi nee nañu koor gi ren métti mu ne ma li ñuy wax xamul ci waaye tabarakallah weeru pàccee la yàlla yàlla may ñu rek ñu mën koo yéwénal te yàlla nangu ñu jàmm bi ay sëñ Babacar si daf ñu daan wax ne ak doom ma gisee kuy gunge kuy teeru daf may jàmm su ma mënuma gunge mënuma teeru mu ni wér rek laay ñaan ci weeru farata yi bu ñëwee yàlla defal ma wér ma mën ko woor mu jeex ma ñaan ko mu ma ko kon yàlla na ko yàlla nangu ñuy kilifa yëpp a ngi fi yow réew mi amul kenn ñëpp ñëw nañu te bu ñu